information bi luy wote assemblée nga jottali ko mbooloon su ko defee cadre unitaire bi am na lu mu décidé ndax dégg na négociation yi bi mu tàmbalee à vingt sept kon am na lu ñu xam li tamit kon ñun la mbooloo mi wóolu woon jiital ñu te duñ leen nax benn yoon li nga xam ni jàpp nañ ko ci négociation bi mu commencé ak léegi ñun tamit ñuy yeggal leen ko ah identité bi nag mun ko am waaye daal jàpp leen ni ñi ngeen ñu wóoree woon ba jiital ñu incha allah ci loolu la ñuy sukkandiku ba duñ leen nax benn yoon te lépp loo xam ne ki nañ leen ko tamit intérêt mbooloo mi yëpp lay doon.

ñoo ma ci gën a sonal sonal bi sax du sonal lu bànneex la des fois sax duma ma leen jël téléphone ndax daw muy ñoom am di ñoom mbóot tellement la pression moo tax la ciow beulé da mu jël sama auto ni ma koy dawal rien que pour bëss bu nekk mu xam fan na affaire bi toll gëj naa dawal sama auto mom moo koy dawal suba ba ngone ci sanu fan nga toll ci mbir mi donc ci lolu am di mbóoj suma amis d'enfance ñu bokkandoo benn euh, cursus ak jigéen ñëpp maa ngi leen di gërëm sot Sotrac metti na nag xam nga coono mënul weesu sa alal nga ciy daw du luy ñaan mais pour information rek parce que presse aussi il faut ñu wax ak ñoom man bi ma ñëwee assemblée jël dossier bi dugaluma ko ci affaire droit dama jël droit teg ko fële dugg ci négociation sociale waxtaan ak ministre bi waxtaan ak groupe parlementaire yëpp. xamal na man doxu lay dox un bon arrangement vaut mieux qu'un bon procès un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès biñu commencer, commencé loi des finances bi mujjé dama waxtana groupe parlementaire yépp wax un problème bi SIAS ama SOTRAC de vivre ak yeneen société wax dëgg yàlla groupe parlementaire

il def ñu dàqante mais xam nga état aussi ni fonctionner Binde ba ci fin bi gis ngeen histoire concessionnaire yi ak état bi donc li fi nekkoon ci gafaga wax dëgg yàlla ñu fexe ko def mais bi ñu ubbee budget bi nii keroog ñoom sax ñoo ma xamal ne ma gaa ñi dañoo assemblée générale ci laa woo Amdi Moustapha ne ko li xaw mu ne ma AG ko waaw comme toi loolu am na bàyyi ma dem waxtaan ak ñoom bi ma ñëwee aussi ci jour bi laa dégg ne dañoo bëgg def grève la fin ma wo am di ne ak mortal nako dimbalé len ma comme que man dama nekkoon ci waxtan ak ñom bra ngeen def dara may len ma wax ak ñom ba paré ci la ko entamé dem mais bon c'est normal ci leen déclencher la grève de la faim man aussi ma dem Paris barke démb laa ñew li ma dem Paris yépp ma ngi suivre situation bi ni mu demee may wax ak gouvernement bi di wax ak ministre des finances am di ma ne ko dama may démb amna na waxtaan bu ñuy waxtaan ak ministre des finances yalla def ci sutura sutura moy ni ñu waxtaanee woon ci lele loolu lañuy continuer mu ne ma man bañuma ma leen jox xaalis mais pression chantage baaxul lenn laa lay ñaan dinaa leen jox ci fan yi mais nañu lever mot ministère des finances dafa ne ma sanu xamul ma ne ko mën ma man may jabu euh, jarbatu Ibrahima Prera. jabara a nga ne muy faccam mu ma li ngay dox ni man ci la bok parce que Ibrahima Prera suma nijaay la këram la nekkon ci Medina. kon li moom maanaam ko sax kon xana nga wo faccam ne ko yalla def na sutura fan yi di len fay wax ne di len fay inshallah dans les prochains jours montant bi nak ñii di dem di waxtaan ak ministre bi ñoo ko mën a waxtaane dégg naa proportion bu nekk mais man du ma dugg ci proposition boo xam ne du ma délégué yebalu leen ma li ngeen ma yebal rek mooy ma dem ak samay mbokk député dem doxi ko loolu laa leen mu mënoon wax rassuré leen ne leen li man li ma leen ñaan ñu ñaan ma ko mooy wax naa ko am di ngeen lever moo d'ordre de grève lever ko di ou mardi tey balaa maa tëdd dinaa xam ban sera lundi ou mardi ñu toog wax ak ñoom ñaata la mu benn li ci topp nag wax naa ko kilifa yi beneen stratégie boo xam ne den ko jël parce que buñ ci jógee rek ci élection lañ jëm kii fay li des bon beneen waxtaan la mais beneen stratégie boo xam ne lal naa ko ak ñii mais li ma leen di rassuré bu soobee suñu borom yàlla may ñu fan ci fan yi dinañ jot mais mënu ma wax ñaata la bu soobee suñu borom li ma lay wax moom sais pas si âgé du wax jamais bu dul grève bi on wax on négocier ko rek on ne am mais comme que dama am luñ ma ñaan ma je vais ko la parole pour nous lever mot de grève lundi parce que xam nañ ne fait ci li tax sax mu xaw doy période électorale Et pouvoir d'opposition, li ñaanul c'est gênant rafetul ci ñom rafetul ci ñun rafetul ci kenn loolu motax ma len di rassurer di wax na man suma mandat parlementaire bu yemoon ci rek doy seuk sëkk def defuloo du lu ñuy saraxu lu ñuy ñaan mais du ma sax luy looy jaamu yalla la mais lo xam de c'est c'est un combat contre l'injustice bima ma buggee dugg ak ñoom ci yoon dama len ne buñ dugg ci yoon parce que ci yoon bi même bu amé benen syndicat bu am lu mu signer

tey mënoon naa ànd ak groupe parlementaire yëpp mais xam nga fii lu ndaw rek ci période bi dañ koy politiser moo tax ma ñaan leen ñu bàyyi man rek ma ñëw parce que ci kër gi laa bokk loolu moo tax di gërëm la presse parce que nag communication dafa am solo ñoom liggéey bi ñu ci jot a def ak am di ak yéen ñëpp ci presse bi aussi bon métti na mais baaxoon na ci man fu ñu ma waxee ma ne yëguma yëguma ko mënuma ci dara mais wax dëgg yàlla ñi taxaw fi yëpp di ko dox yàlla nañu yàlla fay am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla sol nañ ci fekkewuñ ko donc ñi ñaanal yàlla ñooñu dem ci les enfants de la SOTRAC aussi mun naa leen waatal ne stratégie bu baax a baax la xaw ma kan moo ko xalaat mais lu baax la tax taxawaayu jigéen ñi donc loolu laa am li may wax suñu jëf moo war a ëpp suñu suñu wax te man nee naa tant que yàlla moom mooy may suma bakkan bii lépp loo xam ne muy droit wu agent yi nii jëm ci ñetti entité yi bu luy passé am na leneen lu ñu ciy dox bu soobee suñu borom donc di la ñaanal di wax ne quand je viens ici c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'humilité parce que ku xam ngeen baal ma rek waa SIAS ak waa AMA mais Sotrac laa gën a miin ku xam agent Sotrac ni muy liggéeyee heure yi muy jóg difficulté yi mu nekk nekk ci kaar am di mere këram mere jabaram dugg ci kaar bi yem jël histoire bi yëpp yan ko chauffeur bi wala yan ko receveur bi il faut nga nekk Sotrac pour xam lan mooy Sotrac képp ku am lu la naqar sa sa njaboot war ngay uti dépense jor benn cent cinquante franc dugg ci kaar amoo passe retour jox jox receveur bi 150, je joxu la monnaie nga yenn ko sa histoire du mais problème bi mu bàyyi këram histoire donc ku vivre loolu ay ay année vivre yàlla rek moo la mën fay science ñuy liggéey ci mbalit mi li nekk ci feebar ci mbalit ñëpp xam ko ñu ko Sénégal donc ñii agent yi ku leen taxawul gëm nga suñu borom dafa donc liggéey bi ngeen liggéey liggéey bu noble la man de je me glorifie toujours d'être un agent de la SOTRAC parce que suma ma ma si suma formation d'homme, am na lu bëri jàng école baax na am diplôme buñ ci war actuellement je suis un agent bo xam je suis dans le secteur aérien ci transport bi léegi mang ci secteur aérien mais lima jang ci SOTRAC ci ci nek nit ki mun a muñ ci xam adina lu ci bëri SOTRAC la ko xamé donc xam naa ne fii këru de bu baax la di la ñaanal yàlla Ibrahima Mendy euh, yàgg na nekk suma jëwriñ di ñuy taalim di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier la presse jàpp leen ah. parce que vous vous avez fait un travail extraordinaire on est au monde dans un monde de la communication au monde du digital ce travail que vous avez fait a beaucoup aidé ces gens Ce lu ngeen mën la jàppale ci communication jàppale leen ko parce que nag les hommes politiques ñamoo ñu média nit ki sommes ñoom am na fu seen wax mënul yegg mais yéen yéen a ko mën a yeggali donc liggéey bi ngeen def yëpp ba jàppale ñi ñi si biir aussi vraiment ñu leen di gën a masaw ñu ne gën a masaw ay jàmbaar lañu yàlla na leen yàlla fay wasalaam. assemblée ci moom ministre bi tey ji suba mu xeyaat ci ñun fan yi yëpp amul sax vie de famille donc nañ leen ko ñaanal. yàlla may ko gudd fan yàlla sàmm ko moom njabootam yëpp yàlla aar ko sanu yàlla moo am pay yàlla na yàlla fay xam nga ne ci nga bokk ñun xam nañ ne ci nga bokk parce que man liggéey naa ak yow maa ak yow ak njaay nëf liggéey nañ ba sonn liggéey nañ xaaja guddi donc li ngay def da nga koo gëm xaw ma ku la xamul mais man xam naa la man xam naa la bu baax micro man xamna la bu baakha baakha baakha a nirku nit ku baax nga nit ku djub nga nit ku honnête nga wa du li nga toga tax de bo defon ma wax la ko parce que man j'ai pas froid aux yeux donc mbir ma ngi noonu léegi nak mbir mi li ci dess ñun ñi nga xamantene ñoy responsable yi nek fi muy SIAS di ama di sotrak di njiit ñu nek fi bobu ba léegi dama ne mot d'ordre bi comme ni ko honorable député waxee gisee nañu waxtaan nañu d'accord nañ ci kaddu et à partir d'aujourd'hui naka la ah, man après dama Sani standing ovation ñu tàcc ko ndax loolu la ñu mën a manifester suñu satisfaction ci moom ndax dañoo seede Nous avons, ak assemblée nationale Nous ñu ni man député la ndax ñu ma les députés pour ñu am de cause bi nga séance plénière ki nga xamni rapporteur commission des finances et du budget Nous wax il y a dafa ne ñoom député yi li ñu sàkku mooy ñu fay les dettes des sociétés liquidées la Sotrac euh, la SIAS Ama Sénégal ak les sociétés yi mel ni ñoom mu Sotrac SIAS Ama Sénégal l'agent judiciaire de l'État se chargera de régler leurs problèmes D'ailleurs, un budget de 13 milliards est réservé à cet effet. L'immobilier qui la loi des finances 2023 est ñii ñoom loi des finances 2023 un budget de 13 milliards a été réservé à cet effet ministre bi ñu observation dafa on a né un budget de 13 milliards est réservé pour les actes pour les frais d'actes et de contentieux <coughs> lolo wax nous, ñun nous ñu concerné moy ñetti at laaj 13 milliards Nous avons taxaw laaj 13 milliards marche nañu 13 milliards président de la république né avons 13 milliards le budget député yi voté nañ 13 milliards ci budget mais kon ñun 13 milliards lañuy laaj 13 milliards laaj merci honorable gis nañ vous taxaway wax nga dëgg li nga état lay fonctionner jël nañ ko jox nañ ko ay concessionnaire tamit suñu ñu jox ñu ay somnifère dañuy dañuy duñu am suñu ak suñu ngëm

mais nous beral d'abord cant la presse sénégalaise parce que si nous accès fii ci combat nous dañ jouer une bonne partition ba devons mi national et international ñëpp sur le problème euh, B, bi dañuy sant aussi tamit camarades. camarade muy sanu John honorable député pourquoi parce que depuis ñu entamer xex bi ba fi nu tollu waxuma information yi mu indi de ba ñuy def fi assemblée générale booba guñu assemblée ñom la and ak ñun fi la keroog taxaw bobu ak légui ñi ngi jokkoo ak mom ci situation bi day dem a dem effectivement wax na dëgg day dem ba boo pour nga woo jot ko problème la parce que amul lu mu teg suñu loxo waaw ñun aussi tamit ay mag lañu dañu servir la nation sénégalaise limay wax toujours lay waxat ñaanuñu yalwaanuñu saraxuñu parce que kenn mënuñoo téye dund ku dul Maulana suñu wërsëg la ñuy dundee ba dee jot lii ñuy laaj dañ ko moom ñàq ko muy alal joo xam dañu ko war a delloo jox ñu ko gouvernement jël ay décision bien que am na lu entravé décision yi ba ñu agsi fii tey jërëjëf aussi tamit le ministre des finance parce que moom moo ñu waxoon wax ay waxam moo ñëwaat waxaat ñun nag comme li may wax di ko waxaat laay wax amuñu benn levier du Sotrac du SIAS du AMA Sénégal bu ñuy mën a manœuvrer pour xeex wala pour bloquer wala pour def leneen ak leneen combien d'agents ñoo génn àdduna ci waa SIAS 400 et quelques Sotra xam naa romb na foofu AMA la même chose ñooñu tey ay veuve fi nekk ak ay seen ay njaboot li ñu dese mooy xeex bii ñuy xeex muy grève de la faim président de la république ne daf fi voyagé woon ñu grève de la faim mu yónni le ministre du travail ak Innocence Ntap Ndiaye ñu ñëw fii fekk ñu fii mbooloo mi yéen am nañu fi fekkee ñu waxuñu liñ la wax ñu ànd ci ak ñoom ndax kàddu président de la république la ba léegi wax jooju fa la jaar amagun si dara kii nag di sanu sunu camarade la comme li may wax ñun la moom la tey bu ñu doon fay dañ koy fay comme ñu leen di fayee comme niñ may fayee kon bu jëlaatee baton de pèlerin dem ci ministère finance finances négocier wax ak moom socialement tey bu ñu doon wax ay dossier juridique Nous avons ci tribunaux yi di di socialement mu jël engagement devant lui devant ses camarades députés ni dina seet nan lay toogee ak ñun waxtaan ak ñun lu Nous jox mu joxe ko ñun ànd nañ si principe yi nañ si de grève bi nag dañ koy dañuy grève ça ne pas dire définitivement mais dañuy arrêté suñu jógee ca ministre ba nag ba ak définitivement wala dañuy grève continuellement dégg ngeen waaw parce que nag euh, mbir lu mu neex neex na nga xalaat ëllëg lëndëm lëndëm ya waaye bu balaa pour ñu fa àggaatee ñu xam ne lii moo doon sunu taxawaay su doon moom mii moo yore tey xaalis bi di fay mën naa waat ni tey ñi ñu fanaanoo ci seen xaalis billaahi wallaahi wa taala mën naa ko waat waaw kon nag comme dafa nekk ci loxo état te état lu nekk da koy dab lu nekk da koy bett

yakana lolou moñu déssé amul leneen ñun nak dañuy sant yalla parce que lu mu néw néew moom mii tey mooy suñu président de la République ah, moy ministre des finances moy premier ministre parce que déplacement yu nit waron def moko def au nom du gouvernement sénégalais en tant que député kon nous vraiment xol bu sedd doyna ñaan xol bu tàng doyna ñaan kon jarul sax ñu lay wax li ak lay ak lale kon camarade je suis un peu long mais ñu japp ni situation bi non la teudé ñun ñëm ñu jappé ko nonu té ñu continuer nak taxaw taxaway bi bu kenn dem tëdd sa kër commencé calculer le combat n'est pas encore terminé voilà donc camarades vraiment jërëjëf rajim bismillahi rahmani wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi de Sotrac SIAS et Ama Sénégal mbokk yi lui fait ñu fi de la faim Wa femme Sotrac les enfants de la Sotrak, chers camarades et partenaires de la presse ginnaaw bu Santé, sante subhanahu wa taala julli ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ziara di leen balu ak di leen balu ak tey ñaan yàlla mi am njëggal yàlla nañu ko yàlla boole defal ñu fas yéene yëkkati tuuti rek toftal ko ci kàddu yi nga xam ne kilifa yi ñu jiitu wax nañ ko muy kàddu yoo xam ne yii dafay war a engagé mi yëpp ndax li tax muy war a engagé mi dafa engagé ñi nga xam ne ñii ñoom la mbooloo mi jiital kon nag bu fekkente dañoo yor baatu mbooloo mi suñu baat mooy baatu mbooloo mi bu engagement yu jël dañuy d'accord ci ne mi engagement engagement yi bi nga le discours de l'honorable Sanu John. comme ni mu ko on ne le présente plus waxtaan nañu ci ak moom mu jottali kaddu yoo xam ne yii kilifa la boo xam ne monsieur Moustapha Ba ministre des finances moo jël ay engagement ci kanamam ak ci kanami moroomi député kaddu négocier ak nit dans la contrainte doo négocier ak nit dans la pression booy waxtaan ak nit ko chantage loolu kaddu moy une position sommes d'accord nañu ci waxtan té pour ñu waxtan ak ñun dañu leen di won né ñun nekk nañu ci posture nous. xamné ne nous. mën nañoo ak ñoom nekkatuñu ci posture nous ak ñom mais que nekk ci posture négocier ak ñom ñu ngi sant yalla bu nous baax bi nga l'honorable Sanu a eu l'intelligence et la finesse d'engager ces négociations sur le plan social nous avons le plan syndical pour tout ce que nous savons nous tous pourquoi de fait bu fekkente lolo on lui a fait confiance et il a parlé à notre nom avons wolu sanu nous avons am mais mu wax le ministre bi ba ministre bi def ko ay proposition mu proposition ministre nous devons faire une concession, oui ou non, pour que le devons ministre du ministre de l'Ontario. Je suis ici, tout ce que je le ministre de l'Ontario position de nous devons savoir, nous devons faire Tout ce que parce que c'est ce nous devons faire. Si nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Nous avons dit intervenir nous lever le mot ñun war nous on est d'accord comme nous ko nous Diop comme ñun ñoo nous C'est kàddu cadeau. kàddu dire nous. nous devons Nous firil nous. ñun Nous devons dañoo nous. dire Nous devons sonn de nous. tax a Nous fii de pression de grève de la faim Vous faites ne nit de te wax ji nekk war a nekk euh, nar a nekk waxi neen duñu ci d'accord waaye bu fekkente ne nit ñi def ñuy wax te wax ji mu teg ko fu wér foo xam ne bii mën lañ ko wóolu ay proposition mën lañ koo téye defe naa loolu mooy proposition mbo mooy kàddu mbooloo mi wax ji nag wér na parce que Saly li mu wax ku mu doyul dara du la doy wax na leen ne yabu ma leen ci yéen laa bokk bu ñuy fay dañ la may fayalee

nga xam ne dañ naan grève de la faim bi jeex na loolu mooy lever le mot d'ordre dafa am surseoir le mot mooy ñun kat ministre bi moo nañu tant que yéen ngi nekk ci jàkk ji du ma mën a waxtaan ak yéen léegi nag dinañ génn jàkka ji pour mën a waxtaan ak moom en attendant ñu xam lim ñuy wax lan la suñu waxee lu ajam ngooñ ñu lever mot bi suñu waxeelu lu ajulam ngooñ ñu dellu siwaat ci jàkk

mbooloo mi war nañ leen a gërëm te xam ne amal nañ leen njukkal mbooloo mi war nañ leen a doyloo mbooloo mi war nañ leen a déglu parce que nag fii bu fekkoonte ne dañuy teg lis di xamante attention kon di lu bëri dina xew waaye nag da ngay boot boot ku ñëw boot ku ñëwul boot ku xam boot ku xamul boot ku am boot ku amul boot ku wér boot boot ku wérul boot ku naqari deret

wax buma bu ma bokkoon ci délégation bi su ma demee nii koy posé na la wóor ne gënoo xam ñiy dem na la wóor ne ëppoo leen volonté bu ñu sañoon bu ñuy ñibbi si lépp la ñuy indiwaale waaye nag li mën a rek rek mooy nag incha ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam lu sotti moo ko sottal ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam lu jub ko jubal lu barke moo ko barkeel yàlla ñu lu suñu jubal ko mu doon suñu ak suñu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi renouveler suñu ay engagement ci yéen ñu ngi renouveler suñu ay engagement ci yéen di leen wax ne amuñu bët amuñu nopp demuñu fenn ndare bu di dañ leen a yóbbaale yéen ñëpp kenn ku ci nekk fu ñu toog suñu xel mu ngi nekk ci yéen di leen wax ne lépp lu ñu def donte dafa niroog loo xam ne lii yéen xalaatu leen ko na leen wér ne lu jub rek lañ ci jublu lu baax rek lañ ci jublu lu leen noppal rek lañ ci jublu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax

bu buñ ko delloo seen mbooloo mi dinañ sant yàlla ñu ngi leen di gërëm di leen sant di sant suñu jigéen ñi bu baax a baax a baax a baax di sant suñu doom yi bu baax a baax a baax a baax waaye di ñaanal yàlla aji dawlu yi yal na yàlla seral seen taraay bi jaay nabi naa muhammad wa sallallahu wa sallam ala ma mawlana muhammad asalaamaaleykum wa rahmatullahi